sàcc jël ko dañ koy sàcc jël ko siif ko Jarga de nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay. baax. yaa ngi toog fii sant bu baax la. damay ruubee damay jékki da ngay xam na l'ancien gloire nga dafa mel ni am na luy xasan ci sa yaram bi. non damay gunge sama doomu ndey rek comme bëri góor dafa am combat franc dafa jóge ci dëj xam nga faa ma ñëw ëmb ko daal ana suñuy mag Papa Sow xam nga ki muy bëree Tonnerre. xam naa ko baax kay. Tonnerre sama premier combat ren ci combat laa ko kon xam naa ko baax. premier waaw jamono jamono jooju mu ngi daan boobu lay daan Yékini Junior. boobu laa njëkk a takk ngeen. sa Demba Diop. Demba Diop Garga Mbossé. Saalum Saalum xam nga. xam nañ ko daal. conseil nañ ko li daal li ñuy wax mooy. yéene yi waa parcelle yéene yëpp yàlla na ko suñu borom dogal tey. Garga 2 mi faral. daam seen yéene ko ndam indi ko préparé moom mais daam seen bu doon moytu ci tonnerre lan lay moytu no non gisuma lu mu war a am na lu muy am nga lu tax amul lu muy moytu. moo gën a nekk xale. moo gën a nekk xale. bu dee doole. moo war a ëpp doole. moo ëpp tonnerre physique. comme léegi nag li des mooy lu nan lay abréger combat bi ak nan la ko bu muy indi. te loolu waa kiri jàmbaar waa kiri manga do yëpp waxtaan nañoo ak moom ba am nañu yaakaar ne bu ko appliqué. combat bi du yàgg te du métti ci moom. waaye ñu ngi ñaan yàlla balaa saison bee toujours ñu bëre. gars am na est que am nga adversaire Garga 2 man. yaa ngi proposé waaye nag may li ma rek nañu mbëri jël parce que ñun produit làmb lan samay morom yu bëri ñu ngi fi lan moo tax ñu bàyyi làmb di dem dem dem moodu moodu yi wala dem tukki parce que amatul espoir ci làmb grand yi nga xam ne nag ñoo nekk di bëre di daan ñu daan leen nan may xale yi sens waxuma la Garga kese. ñaata mbër yu mel ni Garga 2 ñu ngi ci làmb ji waaye dañoo commencé découragé ah ñu ay champion ku ci mel ni doomu daangu tey ay moromam na ko grand message mu bëre comprendre nga ay jam téer yi Garga 2 maanaam bari nan ba ci ba ci jéen kayre ba ci Quench maanaam ñoo ñëpp ay ndaanal la te grand yi seen âge ñu ngi dem xam nga maanaam doole jaa ngi wàññeeku ñoom it nañu wàcc may xale yi chance parce que bañ fa toll dañ leen mayoon chance ñu yéeg comprendre nga bu ñu découragé loo mbër yi nga xam ne espoir la bu defee làmb Sénégal day daal di deelee kenn du tudd làmb tey bu mu woon ba espoir yëpp bu ñu voyagé tey ban pro moo ñëw fi di ñu bari ci amateur làmb yi dañ naan ci kaw dafa manqué ñu fa ñëw renforcer la. si boo xoolee sax lu tax grand yi li ñu war a dégg seen coono dégg seen yaram ñu ci bari tegoon ko seen coono parce que amatul mbër bu leen di bousculer comprendre nga franc mu ngi fi na ko grand booy may sens keneen ak keneen noonu góor a maanaam ñooñu fiis de Balla ñoom ñëpp bu ñu tasee maanaam bu grand may rek lamb ji day dundaat waaw dañoo war a yéeg man mënu ko ma sama bopp kese dama koy wax sa jour maanaam intérêt lamb la parce que loolu mooy dundal lamb bu defee ñun ñu am na yeneen tamit booy nekk suuf dañuy mën a ñëwaat fii suñu génération lamb dundaat grand yi liñ leen may maanaam maanaam lamb ji moo soxlaatul loolu dafa soxlawaat leneen lu bees te xam nga combat par exemple rëg-rëg Sa doo ko tëgg fii di ñëw di xalaat ay amateurs yu ñëw wala du ñëw wala état de forme doo ko xalaat keroog Franc ak kii bi su meegoo fii noo gis. état bu doy waar su ñoom ñaar ñoom malgré daan nañ ko. soq waaye teewul kenn demutee wul quoi maanaam lamb loolu la soxla loolu mooy tax lamb dundaat man loolu laa gëm. jaajëf merci beaucoup merci Djily jaajëf.